ñeent ak juróom ñeent ak batseba salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am na nu mbégte ci li nu mën a dellu tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci émission bi weesu jàngoon nanu ci mbirum daawuda buuru israel daawuda buur bu jub te laabir la woon te fonk kàddug yàlla lool waaye tey ji dinanu jàng leneen ci lu jëm ci daawuda lenn lu neexul a dégg dinañu gis ni daawuda defe woon lu ñaaw lool fa kanam aji sax ji ba xemeem jabaru jàmbur njaaloo ak moom ba noppi rey lu jëkkër ji xëy na am na koy wax naan mu yéen lu tax nettali bu ñaawee nii nekk ci mbind mu sell déglu leen di mbind mi ci boppam tontu ci loolu mu ne lépp lu ñu waxoon ci mbind mi lu jiitu tey dañu ko tëraloon ngir nu sàkku ci xam-xam bind nañu ko ngir artunu kon nag kiy naw sa doole ba yaakaar ne taxaw nga moytu la daanu ci bàkkaar looloo tax mbind mu sell mi du nëbb bàkkaari yonent yi sax léegi nag nanu dellisu ci ñaareelu téereb samuel ba gis ni daawuda daanoo woon ci bàkkaar ci saar fukk ak benn mbind mi nee bi nga xamee ne bët wàcc na daje ak jamono ji buur yi daan waajal xare yi daawuda yónni yowaab ak njiiti xarekatam ak kaaraangeek israel gépp ñu noot bànni amon te gaw dëkku rabba waaye daawuda moom des yerusalem am benn ngoon nag daawuda noppalu ba jóg di doxanti ci kaw taaxum kër buur noonu mu seen jigéen ju doon sangu te mu taaru lool daawuda yoone nag ñu laajte ci mbirum jigéen ja ñu ne ko xanaa du batseba di jabaru uri mi askano ci it ci kaw loolu daawuda yebal ay nit ñu jëli ko mu ñëw fekk si ko daawuda ànd ak moom ba noppi mu ñibbi këram noonu jigéen ja ëmb daldi wax lu daawuda ne dafa ëmb gannaaw loolu nag mbind mi day nettali ni daawuda doon fexe muur bàkkaaram bi daawuda yëgee ne batseba ëmb na dafa yónnee ci yowaab di kilifa kaaraangeem sant ko mu yabalal ko uri di jëkkëru batseba fekk uri jàmbaar la woon ci kaaraangeek israel noonu yowaab yebal uri ca daawuda uri dem fekki ko daawuda laaj ko nu yowaab nekke ak mbooloo ma ak nu xare ba deme bi daawuda waxeek moom ba noppi mu ne uri àggal sa kër te jàngu noonu uri génn kër buur te buur yakkal ko tofal ko ko waaye uri bañ a dem këram tëdd ca ëttu buur ak surgay buur yépp noonu ñu xamal daawuda ne uri demul këram kon daawuda ne uri xanaa jóge woo ci tukki lu tax àggoo sa kër nag uri tontu ko ne bànni israel ak yuda dëkk ci ay xayma yóbbaale gaal gi misaal jataayu yàlla te sama sang yoab it ak gaayi buur bi ñu ngi dal ca àll ba ndax man nag war naa dugg sama kër di lekk ak a naan di ànd ak sama jabar giñ naa ci sa bakkan ne duma def loolu mukk noonu daawuda ne uri toogaatal fii ba suba ma delloo la uri nag des yerusalem ba ca ëllëg sa bi bët setee daawuda bind bataaxel yowaab jaare ko ci loxoy uri lii la ci bind jiitalal uri ca bopp xare ba fa gën a tàng te dànd ko ngir ñu jam ko mu dee bi yowaab di gaw dëkk ba nag mu taxawal uri fa janook ñeyi xare yi noonu waa dëkk ba génn xeex ak yowaab am ca njiiti xarekati daawuda ñu daanu ca xare ba fekk uri bokk ca ña dee bi loolu amee yowaab yónnee ndaw ca daawuda mu xamal ko ne sa jaam uri dee na bi jabaru uri déggee ne jëkkër ji deena mu daldi ko jooy bi mu summee daawuda yónnee ñu jëli ko mu fat ko ca këram mu nekk jabaram te mu am ak moom doom ju góor waaye li daawuda def naqari aji sax ji am bés nag aji sax ji yebal benn yonent bu tudd nataan ci daawuda noonu nataan ñëw ci moom ne ko dafa amoon ca ab dëkk ñaari góor ku barele ak ku néewle ku bareleki amoon na ay xar ak nag yu ne gaañ ki ñàkk amul woon dara lu dul mbote mu tuuti mu mu jëndoon mu di ko dundal te mu màggandoo ak ay xaleem ca këram mu jàppe ko ni doomam ci jigéen muy lekk ci dundam di naan ci kaasam di nelaw ci wetam am bés gan ñëw ci ki bare alal mu bëgg ko toggal añ waaye mu ñeeblu ay xaramaki ak i nagam daldi jël mbotem ki ñàkk defaral ko gan gi bi ko daawuda dégge meram daldi fuur jëm ca nit kooka mu ne nataan ni mu wóore ne aji sax jaa ngi dund ki def loolu yelloo na dee rax ca dolli gannaaw def na jëf jooju te ñàkk yërmande war na fay ñeenti mbote nataan daldi ne daawuda nit kooku mooy yow aji sax ji di yàllay israel wax na lii fal naa la buur ci israel xettali la ci loxoy sol jébbal naa la sa kër sang dénk la bànni israel ak bànni yuda te bu loolu neewoon dina ci dolli lu tax nga sofental waxu aji sax ji ci def li ñaaw fi kanamam caw nga jaasi uri mi askanoo ci it denc jabaram rax ca dolli ci jaasi nooni israel nga ko reye léegi nag ndegam sofental nga ma denc jabari uri jaasi dootul soreeti sa kër aji sax ji nee na dinaa jollil musiba ci sa biir kër jëme ko ci yow jël say jabar fi sa kanam jox leen keneen mu di leen tëdde bëccëgu ndara kàmm ndaxte yow ci kumpa nga jëfe waaye man dinaa jëf ci lu biir bànni israel gépp ci bëccëgu ndara kàmm bi mu ko waxee daawuda tontu nataan ne moy naa aji sax ji nataan ne aji sax ji baal na la sa bàkkaar doo ci dee waaye gannaaw jëf ji nga def tax na ba nooni aji sax ji di suufeel turam doom ji la ci juddul dina dee noonu natan dellu këram ci lu wér daawuda moyoon na yàlla te tooñ moroomu nitam te ci saar yi ci topp mbind bi day wone ni ko ay bàkkaaram jurale woon coono bu metti ak musiba yu bari ci biir njabootam waaye kàddug yàlla nee itam fa bàkkaar bare yiwu yàlla gën fa bare naka noonu ci jot gi nu dese tey danu bëggoon a gëstu ci mbind mi ba gis ni yàlla wone daawuda yiwam ba baal ko bàkkaaram yépp lu taxoon yàlla baal daawuda ay bàkkaaram ndax dégg ngeen ni daawuda tontoo woon natan bi mu ko nee nit kooku mooy yow ci lu wóor yonent yàlla natan amoon na fit ba mën a waxe noonu ak buuru israel bu mag bi te nan la buur bi daawuda tontoo nataan nag ndax dëj na ko kaso wala ndax doon na fexe lay naan yàlla moo ko dogal wala mu ne ah yàlla baax na xëy na dina far samay jëf yu bon ndax samay jëf yu baax ndax noonu la daawuda tontoo woon nataan daawuda waxul woon loolu de lan la daawuda tontoo woon nag lii la wax moy na moy na moy naa aji sax ji ngir xam bu woor ni daawuda nango woon bàkkaaram fa kanam yàlla faaw nu jàng li daawuda bindoon ci saboor gannaaw ba ko yonent yàlla nataan yedde ndax moyam ak batseba ci saboor juróom fukk ak benn daawuda newoon yërëm ma yow yàlla ci sa cofeel gu sax ci sa laabiir gu yaa faral samay tooñ foot ma ba ma set ci sama bàkkaar laabal ma ci sama jàdd ndaxte xam naa samay tooñ te sama jàdd ngi ne màkk ci sama kanam yow la moy yow kenn te def lu ñaaw fa sa kanam ba tax nga set wecc ci say dogal jub xocc ci sa ate ci ndëng te rekk laa juddoo sosoo ci bàkkaar ci sama biiru yaay dëgg kese gi ci reeni xol nga bëgg sol ma xel ci baatin jëlal caru isop wis ma ma daldi sell sang ma ma daldi weex tàll ni meew sàkkal ci man xol bu laab yeesalal ci man xel mu takku sarax yi la neex yow yàlla mooy xol bu toj cëy yàlla xol bu toj te mokk doo ko xeeb noonu la daawuda réccoo woon daawuda nekkoon na ci naqar ndax ay baakaaram amoon na xol bu toj te mokk fa kanam yàlla daawuda melul woon nit ñi mbubboo diine rekk tey wéy ci baakaar bés bu nekk ci lu wér daawuda daanu na ci kàmbu baakaar waaye mënu ci woon a dëkk ndaxte daawuda bëggoon na yàlla te xamoon na ne yàlla aji leer la te genn lëndëm nekkul ci moom kon nag gannaaw ba daawuda réccoo lan la ko yàlla wax jaarale ko ci gémmiñu natam yonentam ndax yàlla wax na ko demal def ay jëf yu baax te ma far say bàkkaar yàlla waxu loolu de daf ko wax rekk aji sax ji baal na la sa bàkkaar doo ci dee te ci kaw loolu daawuda bindoon na ci saboor di biral barkeeluk nit ki yàlla baal ay bàkkaaram fekk ay jëfam taxul mu ne ñi ñu baal seen jàdd yoon te seeni bàkkaar far ci kanamu aji sax ji yàlla ñu barkel lañu ki boroom bi sëful ay bàkkaaram kooka ko barkel la waaw yàlla baaloon na daawuda te àtte ko ni ku jub loolu nag tekkiwul ne yàlla faroon na musiba yi bàkkaari daawuda indaale woon li mu tekki mooy ci bésu àtte ba yàlla du fàttaliku tooñam far na leen yépp ci téereem naka la yàlla mënoon a defe loolu maanaam naka la yàlla mënoon a baale baakaaru daawuda yépp te ba tey nekk àttekat bu jub ndax yàlla mënoon na fàttee noonu rekk ñaawteef yi daawuda defoon yépp déedéet yàlla àttekat bu jub la kon mënula gëmm rekk ci baakaari doomu aadama kon nan la yàlla mënoona a baale daawuda te ba tey dëkk ci njubteem ndax mën ngeen a fàttaliku li daawuda ñaan yàlla gannaaw ba mu ràññee woon bàkkaaram mu ne ko fóot ma ba ma set ci sama bàkkaar jëlal caru isop wis ma ma daldi sell sàng ma ma daldi weex tàll ni meew li ngeen war xam mooy caru garab gi ñuy wax isop mooy li yàlla santoon bànni israel ñu koy jëfandikoo ngir wis deretu sarax yi sarax yoo xam ne dañu doon misaal deewuk ramukat bi naroon a ñëw tuur deretam ngir fay baakaar yi kon gis nanu ne yàlla mënoon na baal daawuda ay baakaaram ndaxte moom rëccu woon na te gëm li yàlla dige woon ci lu jëm ci ramukat bi naroon a ñëw ci tënk nii la daawuda doon ñaane yàlla yow yàlla xam naa ne mën nga ma baal samay bàkkaar ndaxte benn bés dinga wàcce musalkat bi amul bàkkaar te moom ci boppam dina ma fayal sama boru bàkkaar benn yoon ba faaw kon nag boroom bi yërëm ma fóot ma wis ma ci deretu ramukat bu sell bi ma daldi set wecc ndax yàlla ci yiwam baal na daawuda bàkkaaram yépp ndax yàlla fóot na xolu daawuda àtte ko ni ku jub aha waaw lu ko waral nag ndaxte daawuda nangu woon na melow baakaaram fa kanam yàlla te gëm li ko yàlla dig ci mbirum ramukat bi naroon a ñëw gàddul ko mbugaluk baakaar ngëm gi mu amoon ci digg yàlla yi moo tax ba daawuda mënoon a bég te bind ci saboor naan cëy yow mi ñu baal say tooñ te ñu suul say moy yaa barkeel ci yow mi aji sax ji bindul sa bàkkaar te yoroo xelum jublaŋ yaa barkel mbokk yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ci njàng mi di ñëw bu soobee yàlla dinanu gëstu ci saboor ba gis ni yonent yàlla daawuda seedeele ramukat bi nu naroon a gàddul sunu mbugal ngir yàlla mën noo baal sunuy bàkkaar ba faw su fekkee ne am ngeen laaj ci li nu jàng tey bind leen ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis. yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen fàttaliku li Daawuda bind ci saboor ne cëy yow mi aji sax ji bindul sa bàkkaar te yoroo xelum jublan yaa barkeel